mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ko tàmbulee ci njabootu Serigne Touba gi fi teew di ci teg magi lislaam yi fi teew ak magi taalibe yi nga xam ne ñoo yiir daayira bi nga xam ne moo ñu tax a jóg di am mbégte lool ci teew fi dëgg la bi ñu jëwriñ sëñ Masamba yëgalee bis bi sàkku ci ñun ñu teew fi euh, xamal ni ñu ne itam sunu rakk sëriñ Abdul Hakim moo fi daan teew euh, dëgg la màggalu poroxaan jege na te yàlla dogal ñu am fa ay kër yoo xam ne day yàkkale rek kër sëriñ bi ngir mën a dalal gan ña ñaari waxtu wi daanañu fa fekk ñuy waajal bisu poroxaan waaye nag euh, su doon yéen dong danañu jaral jóg ndax mbokki taalibe yuy def bis di ci sant yàlla di ci sant Sëriñ Tuubaa di ci jaamu yàlla di ci def lu baax fu mu ñu mën a fekk xat-xat bu mu ñu mën a fekk danañu jaral jóg waaye sunu mbokk sëriñ Abdul Hakim itam taxawaay bi mu daan am ci bis bi te am ci ngànt tey sawar nañ lool ci man ko fee wuutu itam ndax bari na lu ñuy wuutu ci yeneen barab yoo xam ne waroon nañ faa dem moom mu teewal ñu kon loolu lépp tax na ñu am mbégte ci teew gi ñu fi teew ànd ak yéen bis bis suñu sañoon nag dañ koy ànd ak yéen ba mu mat waaye xëy na xat-xat yi jamono ak waajtaayu magal poroxaan moo tax euh, duñu ko mane ni ñu ko yéenee magalu poroxaan googu nag xëy na bala maa xóotal danaa ci jaar tuuti wax ci ndax ginnaaw soxna jaara ku ne xam na ni mu toll ci yoon wi ku ne xam na ni mu toll ci diine ji ku ne xam na itam ni mu toll ci seexul xadim sunu sëriñ soxna soosu su amee bis ci ayu bis ji ñu jëm muy alxames fu taalibe sëriñ Tuubaa daje war nañoo tudd soxna si war nañoo wax ci moom dara soxna jaara ku ne xam na fi mu féete woon sëriñ bi ku ne xam na itam dayo bi mu am nga xam ne jigéen la joo xam ne bis bii mu am néew naa ci àdduna bi ñu gis jigéen ju am bis bu ni toll loolu nag ku xoolaat euh, li Cheikh Mouhamadul Bachir wax ci téeram bii di meneenul baaxil xadim ci moom euh, du la bett mu am bis boobu li mu wax ne soxna si ku sóobu woon ci yoonu yàlla la ku mënoon a jaamu yàlla la ku bari woon ay koor bari julli bari saraxe bari def lu baax ku toppoon boromam subhanahu wa taala la waaye ku toppoon ndigalul kilifaam sëñ moor anta ak yeneen ak yeneen yu mu wax ci soxna si kon soxna si su amee bis bu toll noonu du bett kenn ndax yàlla man amila saalihan fa li nafsihi la wax soxna jaar nag su ñuy wax ci moom waruñoo yem rek ci ay jikkoom ak ni mu mel ak dayo bi ko yàlla jox waaye war nañoo xool lu ñu war a mën a jànge ci soxna si te loolu lu ci jiitu mooy li wolof naan góor baax na jigéen baax na dañu ko war a jëmmal dañu ko war a jëmmal mooy góor ak jigéen ñoo yem ci dayo ni ñu leen war a saytoo ba ñu mat li ñu war a doon su sunu borom subhaanahu wa taala waxee yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara na ngeen wattandikul seen bopp sawara te wattandikul ko seen njaboot waxul njaboot bu góor gi waxul njaboot bu jigéen gi njaboot gépp la wax kon lu tax ñu baree bari suñu amee doom ju góor def ko mbégte te ñu amee doom ju jigéen léeg-léeg duñ ko def mbégte lu tax ni ñuy sonne léeg-léeg ci njaboot bu góor gi duñu àgg di ko sonne noonu ci njaboot bu jigéen gi ngir ñu xam seen diine xam alquranul karim tàggat leen ci jaamu yàlla yar leen ba ñu doon jaami yàlla yu mat sëkk loolu laaj yu mat di laaj la te gën ji mi def sallallahu taala alayhi wa waxoon na ne képp ku am ñaari doom yu jigéen yar leen yiir leen tàggat leen ba ñu majeur ëllëg yowmal xiyaam yàgg man nii lañuy ñuy def euh, euh, den kon nag am njaboot bu jigéen yar leen tàggat leen ci jaamu yàlla ci def lu baax noonu la amee njariñ am na feneen fu gën ji mbindéef waxe itam ne ku am ñetti doom yu jigéen yar leen tàggat leen ba ñu dem kër yàlla garanti na la àjjana kon nag war nañoo gën a sonn ci tàggat njaboot bu jigéen gi yar leen jàngal leen diine jàngal leen alxuraan te cheikhul xadim radiallahu taala anhu am na ku mas a ñëw ci moom mu koy laaj kenn ci njabootam bu jigéen naan ko fu mu toll ci ay at kooka ne ko su doon góor de dana mën a dem daara jàngi alxuraan sëriñ bi nag su dee jigéen nag ñoo ci yem képp kon loolu day wane ne naka jekk sunu borom subhaanahu wa taala lim ñu digal mooy ñu yar njaboot gépp tàggat leen ci jaamu yàlla waaye sang bu tedd bi noonu la daan encouragé ak a ñaaxe ci tàggat njaboot bu jigéen bi ak yar leen jàngal leen ak toppatoo leen waaye sunu sëriñ Cheikh Ahmadul Xadim moom it noonu la daan soññee ci yar njabootu jigéen bi ak jàngaleen diine jàngaleen alxuraan loolu nag moo tax bokk na ci li tax Cheikh Mouhamadul Moustapha Bachir ay at yu néew bi mu fi daataa jóge ginnaaw bi mu defaree kër maam jaara gee ca poroxaan defar jumaa ja defaraat xabru ba defaraat fa yeneen yu bari mu ne soxna si nañ ko defal daaray alxuraan moo tax ñu mu sos daaray maam jaari jee ca poroxaan mu ubbi woon 2005 tàmbalee ko ci ñeenti téeméeri maam jaar ak juróom fukk ñu ñu tudde soxna si ñu di leen fay jàngal alxuraanul karim di leen yar ci jikkooy soxna jaara ndax Serigne Moustapha dafa gisoon ne soxna si su fi nekkoon ba tey loolu mooy doon liggéeyam yar njaboot gi jàngal leen alxuraan tàggat leen def ci ñoom jikko yi nekk ci moom mu ne nag loolu kon nañ ko ci wuutu te tàmbalee ko ci ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee soxna si yàlla nag defal ko ci barke wuyu ko ci liggéey boobu ndax ñaari at rek la def bi daara ji ubbee wuy ji boroomam ci ñaari at yooyu am na kenn ci maam jaare ya fa njëkk a dugg muy ñeenti téeméer yi ak juróom fukk ku ca mokkal alxuraan ci kanamam kenn kooku rek moo ci mokkal alxuraan ci kanamam ci ñaari at yu njëkk yi mu fi def wuy ji boroomam waaye yàlla dafa dogal kooka mokkaloon ci kanamam ñu jëlaat ko ca daara ji muy jàngale fii ñu toll nii lu mat ñeent fukki maam jaare ak benn jàngal na leen ba ñu mokkal loolu nag mooy liggéey bu sunu borom barkeel te liggéey boobu li ëpp ci li koy saytu ak di ko doxal soxna yi ñoo ko taxawee kon moo tax bis bu mel ni suñ fi ñëwee te mu jege bisu maam jaara ñu mën a tudd loolu ndax kañ ci soxna yi ndax dëgg la góor ñi bàyyiwuñ leen liggéeyu soxna jaara bi ndax daayira maam jaara yi góor ak jigéen a ciy nekk waaye nag soxna yi moom ñoo nekk ci kanam kon suñ fi teewee war nañoo tudd loolu kañ leen ci fàttali leen itam liggéey bañ fay liggéey ndax daayira maam jaare yi ay junni junniy daayira yaakaar naa ko mujjee saytu ëppoon na ñetti junniy daayira maam jaare ci àdduna bi Sénégal bi àdduna bi nga xam ne ñeenti téeméer yi ñuy dagg ci carte maam jaare at mu jot moom lañuy dajale tey jii Cheikh Mouhamadou Mountakha moo jiite liggéey boobu ci la ñuy dundale xale yi yor leen ci ñu dolli ci ay parrainage muy ndey daara ak bàyyi daara loolu lépp jëm ci saytu maam jaar yi ba tey ñu ngi toll ci juróomi téeméer ak juróom fukk lim ba mu tàmbalee woon bu ñeenti téeméer ak juróom fukk léegi mu ngi ci juróomi téeméer ak juróom fukki maam jaar yoo xam ne lépp fondation maam jaar moo leen ko yoreel way juru xale yi dara waru leen ci ñoom du koddaay du dund du fay du dara lépp fondation maam jaar bi Cheikh Mahamadou Muntaxa jiite moo koy saytu kon nag loolu lépp soxna yi war nañ koo gën a xam ñoom ñi nga xam ne ñoo gën a fés ci liggéey boobu ngir gën a xam lañ fay def fu mu jëm ak yan résultat la jóg ndax maam jaare yi génn kat ci daara jooju te xayma ko léegi ci 398 maam jaara muy ñeenti téeméer yu manqué ñaar ñoo fa mokkale boobu ak léegi ñeenti téeméer daanaka maam jaara ñoo fa mokkale alxuraan te ñoom ñëpp dellu nañ seeni gox ak seeni kër ñii di jàngalaat seen njaboot di leen yar ñii di jàngalaat seen i dëkkandoo ñii nekkaat ci ay daara di jàngale loolu nag su lawee njàngaleem alxuraan ci jigéen ñi law yar bi ñuy def ci ñoom jikkoy maam jaar yi ñuy defaat ci ñoom lii ñu naqari ci suñu société bi muy jikko yu ñaaw ak jikko yu yàqu loolu su yàggee liggéey boobu law liggéey boobu dëgër lu ci baree bari dana faju kon nag lu mat a xam la lu mat a taxaw la su loolu jàllee ñoo ngi nokkeel daayira Matlabul Fawzayni ak daayira yi nga xam ne ñoom lañ ko àndal yépp ci bisub tey bi di leen ci sant di leen ci jaajëfal di leen ci soññ ndax taalibe Serigne Touba li mu gën a soxla mooy di ko soññ di ko ñaax di ko ci ci ci di ko sant sant gi naam ku def lu baax ñu sant la waaye soññee gi yaakaar naa moo leen ëppal njariñ te moom ngeen gën a yittewoo kon ñoo ngi soññ suñu bopp di leen gën a soññ ci liggéey sëriñ Tuubaa tàmbalee ko nag ci njàngum xasaayit yi dégg nañu fi léegi xasaayit yu neex ak yu am solo yi ñu fi jàng ñoo ngi ndokkeel kuréel yépp Cheikh mun Mountakha day faral di wax ne sëriñ bi lu bari lañ koy defal dañ ko koy defal waaye nag xasaayit moom mooy li mu defal boppam mooy ab liggéeyam kon nag ku ci yëngutu ak di ko jàng ak di ko nafar ak di ko durus ñu war laa ndokkeel xam ne yaa ngi ca li gënal sëriñ bi ndax yaa ngi ci liggéeyu boppam ñoo ngi soññ itam daayira bi ci gën a ànd gën a booloo gën a góorgóorlu ci njàng mi muy njàngum xam-xam muy njàngum alxuraan muy njàngum diine muy njàngum xam sëriñ bi ci boppam ñoo ngi leen ci soññ bu baax a baax ndax yàlla dogal na nun ñii bañ cay toll mbiri daayira am na luñ ci xam-xam ndax bi ñuy nekk lycée El Hadji Malick Sy ca Thiès yàlla dogal na deux euh, mille 1984 ba 1990 ñoo jiite daayira ba bañ fa jógee dem université ndar bi mu ubbee 1990 itam yàlla dogal na daayira Mafatihul Bichri bañ fa njëkk a sos ñoo ko jiite woon ñeenti at yu njëkk yi te gis nañ ne liggéey bu jafe la mbiru daayira ak jiite daayira liggéey bu jafe la waaye liggéey bu am solo la ndax barab yu mel noonu maa ngi fàttaliku bi ñuy nekk université Ndar université bi soog di ubbi ci 1990 bi ñuy taxawal daayira Mafatihul Bichri bëgg a daje woo magi Ndar yi ñoom sëñ ma dikke wadd ak mag yi nekk magi taalibe yi nekkoon Ndar woo leen invité leen ngir ñu ñëw fekk si taxawal daayira ba biñ àbbee amphithéâtre dañ ne fii daayira xew fi mbiri dina xew fi université dafa layik kon sañu leen fee def benn daje nga xam ne dañ ñoo génne ñu dem ca dëkk bi jàkkaarloog université bi tànt fa suñuy tànt ngir defe fa daayira ba njëkk baas yi ñu takkoon sax wala boog banderole yi ñu takkoon ca miiru université bi ngir wane ne tuxal nañ fañ ko doon defe ci biir université bi yóbbu ko ci dëkku village sànnaar banderole yooyu sax dañ ko dem dindi loolu mooy wane ni kon liggéeyal Serigne Touba yëkkati ko yàgg naa ànd ak ay jafe-jafe yàgg naa teeng te loolu lu tuuti la soo ko méngalee ak li mag ñi jànkonteel ci jamonoy sëriñ bi sëriñ bi soog di taxawal yoon wi loolu lu tuuti la ci mag ña ca topp kon taalibe Serigne Touba yàgg nañoo jànkonteek ay jafe-jafe ak i teeng-teeng ngir liggéeyal Serigne Touba waaye nag maa ngi fàttaliku 2010 wala 2000 at yu mel noonu 2010 yaakaar naa euh, ñu invité ma daayira ba nga xam ne maa ko jiite woon bañ koy sos ñu invité mu fekk na ma jóge fa lu yàgg daanaka fukki at ak nàngam wala lu jege ñaar fukki at sax fekk na ma jóge fa ñu invité ma bis boo xam ne dañ fa doon def benn symposium porte parole xalif général di murid di ko présider ñu defe ko ci amphithéâtre ba fa gën a mag recteur bi jiite woon université bi di Mary wu ñaan tey euh, moo moo ko jiite woon booba nekk recteur teew ca ma jël fa kàddu fàttali jaar-jaar boobu nga xam ne kero yéem nañu baree bare ndax bañ ñuy tere biir université bi wuute na lool ak ñaar fukki at biñ ko biñ ko ca tegee ñu toogaat fa di def ca biir université bi lañ ñu doon tere kon nag loolu di wane rek ne tànki mbiri sëriñ Touba amul tànki ginnaaw waaye tànk kanam rek la am lu mu teeng teeng lu mu jafe-jafe lu mu metti metti suñu borom dana ci def jàpp na la xéewal su fekkee jàpp nañ te bañ a bàyyi xam ne mooy li ñu amal njëriñ muy liggéey sëriñ Touba kon nag loolu ci laa leen di soññiwaat ngeen gën cee góorgóorlu gën a farlu ci njàng mi gën a farlu ci njàng muy jàng alxuraan muy jàng diine ndax fii ñu toll nii bari na ñoo xam ne jamono yooyu ñuy nekk ca université bi wala ca lycée la ñu xamante woon boo ko nekk ci daayira ba di góorgóorlu ci njàng mi bari na ñoo xam ne tey dañ may woo ñi nga Italie ñi nga yeneen dëkk naan ma daayira bi de moo ñu may ñu mën a sax fer ijji ba léegi suñuy kuréel ñu mën cee bokk wala suñuy wàcce kaamil ñu mën a jël ay jukki kon loolu liggéeyu daayira la daayira dafa war fu mu nekk mu tàggat fa ndaw ñi li leen rëcc ci seen diine li leen rëcc ci alxuraan ñu mën koo dabaatal ci daayira waaye daayira itam dañoo war a cultiver l'excellence maanaam fexe ba fu ñu nekk nekk ñu diiñ représenté yoonu murit diiñ ci représenté Serigne Touba ndax ñun ba ñuy nekk université dañ daan soññee ci ne nañu fexe ba daayira bum ñu tee ci njàng mi kenn bañ ñu cee raw dañ ci daan ñaaxe lool di sax joxe ay neexal ci biir daayira bi képp koo xam ne am na résultat yu baax ci njàng mi ñu dee jox ay neexal ndax rek dañ doon bëgg a cultiver l'excellence pour que nit ñi bañ a jàpp ne dañuy topp mbiri daayira ba yaafus ci sunu njàng wala sunu liggéey wala sunu leneen kon daayira dafa war a nekk luy ñaaxe luy dëgëral nit ki lu mu nekk muy am njàng muy am liggéey muy lu mën lu mën a doon kon loolu itam maa ngi leen ci soññi di leen soññi itam ci daayira bi nekk buntu yoon wi ci fi mu nekk lu mel ne ki fexe ba am bibliothèque am fay téere yuy wax ci sëriñ bi yuy wax ci yoon wi ci làkk yi français arab ak yeneen nga xam ne képp kuy gëstu ca koñ ba bëgg a xam lan mooy yoonu murid kan mooy sëriñ bi su ñëwee ca daayira ba mën a am luñ teg ci loxoom lu wér a loo xam ne dana mën a gisal boppam mu bañ a yem rek ci naan kafe jàngi xasaayit li muy baax baax daayira war naa boole ci mission lu mel noonu xam ne fu mu nekk moo fa représenté yoonu murid ña nekk ci daayira ba xam ne ñoo fa représenté yoonu murit ñu defar seen jëmm defar seen bopp ba ku leen gis xeemeem sëriñ bi mën a ànd seeg sëriñ bi loolu mooy liggéey bi gën a am solo ci liggéey bi ndax sëriñ Touba da daan wax ne bu leen bokk ci ñi yàq sama der ndax yàq sama der mooy nga may tuddoo te duñ la gis ci lu neex yàlla duñ la gis ci lu yàlla gërëm di la gis rek ci ab safaat kon nag taalibe Sëriñ fu mu nekk te loolu daayira moo ci ëpp mission dafa war a góorgóorlu ci defaru defar jëmmam defar ay tegginam defar ay jikkoom kenn du ko man ci liggéey kenn du ko man ci def lu baax ba ku ko gis xeemeem li mu nekk nangu koo gëstu nangu ca ànd kon loolu maa ngi ci sam soññ sama bopp di leen ci soññ itam li may jeexal itam ci soññe yi mooy soññi leen itam ci dimbalante te yàlla tax ndax daayira li ci jiitu ci mission looloo ko tax a jóg dimbalante te yàlla tax taalibe Sëriñ Tuubaa ay jullit yu ànd di dimbalante te yàlla tax jamono xam ngeen ne lu metti la crise yi suñ koy lim duñ fi jóg jafe-jafe yi àdduna ku ko gis xam ne lu lu rëy rëy la lu tiis tiis la ba mooy yóbbu ndaw ñu bari ñuy jël ay gaal di ci risquer seeni bakkan ngir wuti lu ñu terloo naam loolu ku ne xam na ni gouvernement moom la gën a war ci mu saytu loolu góorgóorlu ci dimbale ndaw ñi ba ndaw ñi am lu ñu toogee loolu nag li muy war war gouvernement bi teewul ñun itam am nañ ci suñu wàll ndax sëriñ Touba dañoo jàngaloon bind boo xam ne fu mu tollu dafa war a tooy ci ñun ñu di ko nafar saa su nekk ndax daf ñoo waxoon ne na ngeen di sukkandiku ci seen bopp ndax su ngeen sukkandikoo ci seen bopp da ngeen mënal seen bopp te su ngeen mënal mënalee seen bopp kenn du leen mënal di leen sañal kon nag daayira yi war nañoo gën a xalaataat gën a xóotal xalaat jëme ko ci nan la ñuy def ba ci seen dimbalante ak seen dooley mbooloo ndax mbooloo mooy doole danañ man di dajale di investir ci seeni membre ba dimbalante bi mën a jur ñu ci mën a am ay xëy di ci mën a am ay liggéey di ci mën a am luñ tooge di ci mën a am luñ liggéeyal Serigne Touba daayira yi war nañu xóotal seen xalaat ci lu mel noonu fexe bay def ak taxawal yoo xam ne ak investir ak a dimbale seeni membre ñuy mën a investir ku ci am métier bëgg matériel ñu mën laa jàppale ku ci am xam-xam boo mën a taxawale dara ñu jàppale la ci loolu xëy na ci tàmbali mën naa néew waaye li am solo mooy tàmbali ko sax ci su yàggee sëriñ bi jàpp ñu ci ndax dimbalante gi mooy lu ci bare bari bokk na ci mission yi ëpp solo ci mbiri daayira kon loolu itam ñu ngi leen ci soññi bu baax baax kon daal lii mooy kàddu ci lu gàtt yoo xam ne ne woon nañ suñ ñëwee bokk koog yéen waxtaani koog yéen muy waxtaane taalibeeg moromum taalibeem bokkum taalibeem waxtaanu soññante waxtaanu dénkante euh, li des ci waxtaan wi muy lu gën a xam la sëriñ bi lu gën a xam lu ànd ak sëriñ bi lu gën a xam ak taalibe nan lañ ko war a dunde loolu lépp sama mbokk sama xarit sëñ Xaadim Njaay tasawuf dana ci dellu si suñu sañoon sax dañ fi toog ànd ko yéen déglu ko taataan ndax li muy wax xam nañ ne dana si ci mën a jariñu ci taalibe ci diine ci pas-pas ci luy suuxat roo waaye xëy na xat-xati jamono ak ni ñu ko waxee rek waajtaayu màggalu poroxaan tax na duñ ko mane niñ ko yéenee waaye ñoo ngi ñaan bokki taalibe yépp ñu teew toog déglu ko setantal li muy wax te jéem koo jëfe jéem koo jariñoo incha allah ñoo ngi ñaan nag nii suñ boroom def ngeen taawoo liggéey Serigne Touba bi taawu ko ba du laal suuf ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha di waxe taawu boo ngeen ko taawoo ba du laal suuf ñoo ngi ñaan ngeen sax ci dàkk te lépp ñu tase ca ngërëmul Serigne Touba ñoo ngi ñaan suñ borom sàmm leen sàmm njaboot gi defal nu tawféex Serigne Touba te lépp lu ñuy liggéeyal Serigne Touba. ñu man koo matal ni ñu ko bëggee te ñaanal a cheikh mouhamadul muntaxa suñu borom gën ko fee yàggal gën ko wéral te li mu naa la liggéeyal sëriñ tubaa lépp li mu ànd kook moom ba mu amee ko ni mu ko bëggee barke cheikhul xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu